mbokk yi dalee nag jàmm fii ci OSR Monde ñu waxaat ci wàllum colonisation bi nga xam ni lëmbee na àdduna bi ay ati at Aminata Touré nag mu ngi woo nit ñu weex ñi ñu defaraat nag yàqu-yàqu yu ñu indi biir Afrique Mimi Touré nag moo ngi xeexal africain yi ci jëf yu bon yi leen tubaab yi defoon ci jamono yu njëkk ya ginnaaw bi ñu tubaab yi jaayee doole ay ati at tey nag jot na ñu ñun waa der ñuul ñu xoolaat suñu toogaay loolee ki fi nekkoon premier ministre bi di xeexa moom nag mu ngi ñaan tubaab yi ñu bàyyi seen ginnaaw lépp luy affaire colonisation ak réeroo ca forum mondial des nations unies bu ñu amaloon ca Fès fële ca réew Maroc maa ngi rafetlu liggéey bu rafet bi waa Nations Unies di def ak nañuy jéemee rafetale diggante tubaab yi ak nit ñu ñuul ñi te loolu li ko mën a suuxat du lu dul waxtaan ak sottante xalaat suñu diggante waaye nag pour ñun africain yu sud Sahara yi nag waxtaan bi dafa war a tàmbali ci ku ci nekk bàyyi xiiroo bi ak ŋaayoo bi te itam colonisation bi nit ñu weex ñi ba tey dafay ba tey daf ñu fi bàyyil ay rëkk-rëkk loolu nag ba tey moo tax ñuy dund racisme bi ñuy dund bés bu nekk loolu moo nekk ay kàdduk Aminata Touré yu mu ñu jagleeloon talaata bi ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub novembre ba moom nag mu ngi waxaat ni nit ñu weex ñi dañoo war a nangu ni mësuñoo dekk ci dëgg ba pare nag ñaan njéggal ngir ñu mën a defaraat lépp lu ñu yàqoon ci ginnaaw lu ko mooy nag day mel ni sa day mel ni sa dëkkandoo bu àbb la ab xaalis ba pare di fàtte fàttelu waxi defaraat li ci nit ñi li nit ñu weex ñi di ameel waa Afrique du wax ji ndax moom mi gis gisam mooy lépp lu lépp lu baax lu africain yi amoon yépp jël nañu ko bu ñu topp bu ñu toppee discours Mimi Touré nag ba tey moo ngi àddu ni ndaw ñi dootuñu nangu ku leen di xoxatal wala di leen teg fitna Afrique nag nekk na ab continent boo xamante ne ay xale rekk ñoo fi nekk te ñoo fi ëpp amaguma amaguñu sax ñu ci ëpp sax amaguñu fanweeri at ak juróom te ndaw yooyu nag dootuñu nangu ñu leen di teg lu metti walla di leen di leen jaay doole ak di leen mettital loolu nag moo waral ñu war a toogaat waxtaan suñu biir africain yi ak nit ñu weex ñi waxtaan waxtaan bu dëggu ngir ñu mën a nekk ci jàmm ku ci nekk jox sa morom cër bi mu yelloo la loolee rekk la Aminata ture di sàkku si ku ci nekk ci ñun mbokk yi lii la leen indiloon tey fii ci OSR Monde